بسم الله الرحمن الرحيم بنفلني فحقيق ما بي نطق فحقيق ما جرى بعلا قصدنا ما فما فضلا فضلا أتينا من صبا طلب بيني فإن يرضى له قول فممن بي فممن قد نفى مثلا فإن يزال قول قول ممن بي ممن قد نفى تجد فلني فإن يزال فممن بي فممن قد نفى مثلا وممن بي فممن قنما مثلا أيوة فأنتم يا أعيبائي ولا بالقراء لا بعير فممن بي فممن قنما مثلا فممن بي فممن أنبى مثل أيواء وصلى الله مولانا على الآدي سما فضلا فممن بي فممن حنبا مثلا أيوة أيوة آل بل وآل بل وأصحاب بن بن أيوة بمن صار ليلا بينا وآل بل وآل بل وأصحاب بن بن أيوة بمن صار لم تبد فلمني وآل بل وأصحاب بن بن أزواج أنصار الإمامين وآل بل وآل بل وأصحاب أزواج من صار ليلى بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة بها أنال وطني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين نحمده حمدا جامعا لوجوه المحامد والصلاة والسلام بأكملهما وأشرفهما وأتم صورهما وأدلى معانيهما على ناصر الحق بالحق طلعة الحق بالحق سيدنا ومولانا محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين ومن نهج نهجه واستنى بسنته واقتدى به وبهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waaye fay leen mu nuyoo mbokki jullit yi fi teew gannaaw bu nu sant yàlla julli ci yonent bi ñu ngi nuyu kilifa yi fi teew yépp te maa ngi ci namm ñépp nuyoo bii ñuy nuyoo nuyoo Seydi Aboubacar Sylla ibnu Cheikh Alxaaji Mansour mu Cheikh Alxaaji Malik di nuyoo Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour si xalif général de Tijane boroom daara yi ku ko sañoon ni ak daraa yi ndokkale leen rek moo ci des gàmmu gi baax na ba noppi neex na ba noppi ndax li yàlla gën a bëgg ci diggante yi jullit am na ba noppi yàlla lim gën a bëgg ci diggante yi jullit mooy nekk benn guy dëgg benn buur la ñu am moom képp la jenn diine la ñu am lislaam la benn téere la ñu am alquran la noo bokk benn yonent bi tax nu tànt bi mu di sayyiduna Muhammad soxla si benn la ñi fi teew ñépp ko bokk suñu wóoloonte kenn mën na koo dox jullee gën a foor ci li ñuy def su imaam day jàng faate faatiha ca kaw bu nee bool dolliin ñépp bokk nañu maase ci amin xam nga amin yi tànt mooy lan mooy ku saraxewul bul jaabante tànt ñetti yëf rekk a koy yàq doo saraxe doo fittasu te doo déglu boole ci rafet njort laay ju ñu yëkkati nga yeggale ko loolu da yàq tànt laay yi may wax ñëpp a ko xam ndax lu bees amu fi laay yi ma fiy wax ñépp a ko xam ndax lu bees amu fi wax jeex na tàkk waaye waxin des na fi de wax jeex na tàkk waaye waxin des na fi de bi fi waxin dese ku ñu nangul ba noppi am na fi sëriñ bi ñu ko jox loxo ñëpp faatixa la leen jàngal mokkal naa ko lu tax ñu jàngaloo ko ko boson lañu nangu moo tax borom ndigal loo seen bàyyil mu dem te man ci borom ndigal yi laa ku ma toppandoo suux billaahi wal maa ngi nuyu maa ngi ziyaare ñëpp jaarale nuyoo bi ak ziyaara bi ci ilimaanu dëkk bi teg ko ci boroom dëkk bi teg ko ci waa dëkk bi teg ko fi ci ñi dikk ci dëkk bi gàmmu jaratul sore loo fi bëgg a wax ñëpp xam nañ ko waaye kii may bëgg a waxtaane nag moo gën ñëpp kon na ma ñëpp may déglu ma waxtaane ki nu bokk gën te waxtaane ko ci mbindum ki nu bokk gëm mu di Mawlana Sayyid El Hadj Malick man sama xel dafa gàtt li may bëgg a wax duma ma ko ñépplu dama koy wax carrément ñi ñu fi nuyu woon ñépp nuyu naa leen ñi ñu fi ziyaara woon ziyaara naa leen ñi fi waxoon béggee naa seen wax ñi fi woy béggee naa seen woy diine ñépp ko bokk waaye kilifa mënul ñàkk xorondoom yi ci àll bi sax dañu am kilifa waxuma nit ñi jàngal sóoratu namli nam li mooy firi xorandoom fur mi benn xorandoom a nga ca boo xam ni day soox tànku càmmoñ ba tudd taaxiyatu waaye sëkkëre jiitu ca kanam njiit ga baax ci moom la ko yàlla defoon moo tax kaay nga jiite ñu mooy dëgg waaye tey ma jiite leen day yàq kaay nga jiitu nu mooy dëgg waaye pare ma jiite leen yàq la te ku la gën a neex tànk gën laa xam yoon jëkk laa jóg sa dab ko yombul si da Hajj Malik dem na bu yàgg bi ñuy dukk dukkeek yomb yomb fekk na ko ni meles déggoo ma de nga dima xool rek bi ñuy dugg dukki ak di yomb yommi fekk na si daxaaji Malick ne mes ma ne xorandoom yi sax dañuy am kilifa soo jàngee suuratu nam li danga gis tukki bu yont yàlla Suleymaan di tukki ànd ak mbooloo mu bare bare bare diggante ay nit ak i jinne ay picc nga ca sax picc bu ñuy wax hudd hudd mosul njubburu moo yóbbu woon leetar ba ca balxiis balxiis mooy la reine de Saba maa mulku suleymaana wa maa balxiisoo al kullu ishaaratun wa antal maana nekk nguur yi ñu fiy gis yëpp benn ci nguur nguur boo xam ni laata nga koy falu ci baadoole yi nga woon ne la wóor ni da nga wàccaat bokk ci baadoole yi buur bi mësul nekk baadoo la te du wàccaat nekk baadoo la laa ren de saba buur la woon nett lee ci des firaaw na buur la woon nett lee ci des hudat ibnu badat buur la woon nett lee ci des gratte-ciel am ca Amérique nit ñi jàpp ne dafay door a am alquran nee na amoon na yu ko ëpp yoo xam ni kenn dootu ko gis alam tara kayfa faala rabbuka bi aad irama zati l imaad allati lam yuxlaq mithluha fi lbilad wa thamuda alladina jaabu saxra bilwaad wa firauna di l awtaad kero biñ duggee Italie dugg ci tunnel bi ñu yi dama déy Seydou Aboubacar ni ko laay ji maa ngi koy door a dégg tey alquran dëkk yépp yépp la nettali la fa xew te ki koy nettali mosu faa dem xam nga lu tax moo fa def dëkk ya def fa ñu dëkkee dëkk ba def fa wërsëgu waa dëkk ba moo tax mu mën a wax léppi dëkk ba yent yàlla Suleymaan tukki ànd ak mbooloo mu bari dëkkmal gàddu xorondoom gii taax yetu nekk di xorondoom ba tey soox tànku càmmoñ ba tey kilifay xorondoom ya riiru mbooloom Suleymaan ma ni toq ci nopp xorondoom wa te mi ngi ko dànd dix kilomètres mu yuuxu ni yaa ayyuhan namlu yéen xorandoom yi kon xorandoom a ngay wax ak xorandoom yi nit yi wax ak nit kon udxulu masakinakum gaaw leen dugg seen kër laa yaxtimannakum suleymaan wa junuuduhu wa hum laa yash'uruun damay ragal suleymaan yegg si dammate leen ak mbooloo mi mu àndal te du ko yëg loola ñu toq ca nopp suleymaan te man ko dànd dix kilomètres suleymaan egg poñe kilifa xorandoom ya ni ko da ngaa ni damay wër di tooñ bay toj këri jaambur di damm tànki jaambur mu ni ko kon déggoo làkk wi dama ni waxum la sha'urun fekk du ko yëg damay bañ nga def ko ci njuumte Suleymaan ni yàlla yebal na lu ma gën a tuuti mu waar ma moo tax ko ne gone gu tuuti gi du ma waar gone gu tuuti gi romb la laa taxqiranna saxiran fi muxaasamatin inna albaodata tuddnii muqlata al asadi bul xeebati gone gi ci xeex bi bare na lu bëtu gaynde di nàcc te yoo ko ca mat wax naa dëgg de laa taxqiranna sagiran fi muxaasamatin inna albaodata tudd nii muqlatal asadi bul xeebati gone gi ci xuloo bi bare na lu bëtu gaynde di nàcc te yoo ko ca mat te xam nga àddina bi lu ko yàq ñuy def ba pare boole ca di nettali lañ def bu dee lu baax noppi ca bu dee lu bon noppi ca nettali lu baax lu baax loo def yow day wàññi daraja ja nettali lu bon loo def yow day yokk bakkaar ba te jamono ji wax bare na te jëf néew na limaam Shafii radiallahu anhu dafa dëkk ki borom xam-xam ëpp leen bayre ëpp leen xam ëpp leen éloquence dàq leen a ñu jëppi ko xëy dal ci kawam xas ko sikkal ko jëli dal dóor ko mu dugg ci biir ron lalam taalibe yi ni ko danoo bëgg jàng mu ne jël leen pilim yi jàng ci ron lal bi ci lay joxe cours ñu jël seeni pilim mu ne li xew te wóor moo di xanaa da ngeen yëgul ne ba yi nga xam ni ñoo nekk ci àddina fa ñu tëju caabi ji koy ubbi mooy tontu xaalu sakatta wa qad xuusimta qultu naam inna aljawaaba li baabi charri miftaaxaw bi sama patt jiiba ni patt ngeen naan ma tontu ñi lay xas yëguloo ni musiba yi tëju ci addina ci magasin caabi ji koy ubbi mooy tontu waxtu wa tontu ubbi nga musibay caabi waaye bi bi mu ci tega mat a déglu daf ne amma tara al usda tuxsha wa hiya saamitatun falkan bu yaxsha la amri wa huwa nabaaxaw nee na gisuloo xaj ni làmmiñ wi ree te ay dàll rek a koy dàq gisuloo gaynde ni gémmiñ gi gàtte te bu ne salaamaaleykum rek ñëpp abal ko ma joxe ci exemple góor ga dafa yónni doom ja ni ko tibbal ma safara tibbal ma xalu safara xale bi génn gis gaynde gi boof bët yi xonq cooy mu defee ne taal la jël bant ba di luqati bët ba gaynde gu jigéen gi ni gaynde gu góor gi wax ci mu ni ko kii dafa ma réere te man duma wax ak ku ma réere xale ba luqar ci luqar ci xalu safara yu tee génn bàyyi ba yàggaayu xale bi jàpp ko mu génn doon xool xale ba séen ko ca kanamu gaynde ga mu ne gay faf ni dara jaaxaan mu ne ko këlee xam këlee xam moo tax ku la réere ku ne noppil ci moom sayiduna muhammad saxaaba yi dañu ko ne nan la ñuy def ba amuk yëkkati ku ëllëg ca kanamu yàlla mu ne ku bëgg a yëkkati ku ëllëg ca kanamu yàlla da ngay lewat ci ku la réere xamuloon ci la Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz rawe ñëpp ci la Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz rawe ñëpp ko cuul cuulee mu ne patt tànk xott yoo xormay diine sëñ Abdou du tontu boo laalul bi sëñ Abdou du tontu boo njabootu diine gi sëñ Abdou du tontu leneen loo ko mën a wax pour moom baax na ca la dem dem ca dem ca ba réer nit ñi wëlbati ko feeñ ci yàlla góor gu baax gën a sëwanu ca Tiwaawan ca béjjaaw bale ku ko teg ci sa kanam wëlbati ko di def njaaxum billaahi mat ngaa moytu yéen ci yàlla Muhammad saxaaba yi dañu ko ne nan la ñuy def ba yëkkatiku ëllëg ca kanamu yàlla mu ne ku bëgg a yëkkatiku ëllëg ca kanamu yàlla da ngay lawatiku le réere ñu ne ko ak kan mu ne wa tuatiya man xaramaka koo xam ni pexeem yépp mooy nga ñàkk li nga am yow sa pexe yépp na doon nga fexe ba mu am faggul sa noon lu baax ku ko mën agul départ goo waxuma ak di yegg fekk sa noon bu la noonu ba loo wax mu ne noonoo nga faggul ko lu baax ku ko mën agul départ goo waxuma ak di yegg baatub noonoo waa ndar dañ ko bëggoon moo tax góor ga ca bonekaare ba sëñ Babacar ci wàllu sociologie muy woy di ci jaxase tubaab naan waxay suma laqaytu minhum waxidan yaqulu mais eh bien yakunu shahida eh bien lada wadaa'ihim maarufun non non wa way way baynahum maarufu il faut il faut muallafun bila ajal si si lada taxqiqi qawlin wa amal wa daaka dabun musbitun maa paska wa sabata lafsa alxadisu eska ah <laughs> sëñ bi waa boor bi dañ ni naa ko waxaat kon beneen ndigal jiwaat na si debu Bakar de naa ko waxaat kon ku bëgg enregistré enregistré ko ni waa Ndar mel sëñ Babacar daf ko woyaale daf ni wa xaysuma laqaytu minhum waaxidan yaqulu mais eh bien yakunu shahida eh bien lada wadaa'ihim maarufun non non wa way way baynahum maarufu il faut il faut muallafun bila ajal si si lada taxqiqi qawlin wa amal wa zaaka da'bun musbitun maa parce que wa thabata lafz al hadisu est-ce que di digle ka def la rawal yi mbay daa taxaw tem mu tey digle ka def la rawal daa taxaw tem mu tey digle ka def la rawal yi mbay daa taxaw tem mu tey xalifa yaay daba njaay si daa taxaw jom mu tey digle talibe cheikh yi loxo ca kaw mbay daa taxaw tem mu tey digle léegi taxaw temm tey bàyyi toora bay daa taxaw jonn tey di fekk loxo ca kaw mbay daa taxaw temm tey bàyyi borom daara jee taxaw temm tey digle ka dem tey digle ka def la la war أنا مستفعلا ففاعلا أنا مستفعلا ففاعلا وجه مستفعلا ففاعلا أنا مستفعلا ففاعلا أنا مستفعلا ففاعلا وجه بسيطني رك يومي دجبات باك سمر عتيقني إنه مبارك mooy ki ko jar. day daane. te deesu ko daan. kii rek moo. moo ma tafar. far leen ci. دور تكن دولاري أقرب به إنه حقا خير وزير am kilifa bokkul ak jaamu xéram am kilifa bokkul ak jaamu xéram xamoo ni xéram du kilifa xéram du kilifa loo xam ni fa sampal sa bopp bu tilimee yaa koy fobeere yaay toog ba mu soob la nga rendil ko xar wala bëy wala nag jël deret ja sottil ko sotti ca soow jaan ja dal di ñëw raam sànq lañ ba ñëw weer wa ñëw muy luuñ luuñi nga ne lii mooy sama kilifa kilifa koy formé yow xëram du kilifa kilifa day xam diine jàng alquran jàng sunna di ko pratiquer di ko digle di ko jëfete te tënku ci sax ci dàq mel na Seydi Hadj Malick waaye ku ne nit ñi kaay leen ba ñu ne kër kër ni këpp joxañoo leen yàlla xanaa joxañ leen sa bopp yow doo kilifa li may wax yépp ay référence alquran laa lay indil ñi jàngul sax dofu ñu waxamaat ñi jàng yent yàlla Ibrahim dafa judd ci barab boo xam ne la fa xew mooy jaamu xiram ñépp di su jootal ca Babylone ñu xëy programme ko pour mu su jootali ca guddi ga mu def pexe déclaré feebar ci la ñu xamee ni def pexe ba rawale sa diine ci nite la bokk stratégie boobu la Seydi ma Malick jëfanteeg tubaab yi rëppeel leen samp zaawiye yi malaane wasifa yi jolli ceddo di wasifa nit ñi mokkal alquran digg sunna koo nax mu taxaw alaaji maa liggéey waaja déglu leen bu baax yent yàlla ibrahim ñu ne ko kaay su jootali xiram fa nadara nadratan fi nujuumi fa qaala inni saqim lañu ko bëgg yóbbu muy jaamu ji xiram mu xool ci biddéew yi daal di ne man da dama feebar téere yu werante ni feebar boobu feebare yaram la wala wala feebaru moral la jërëjëf Cissé feebaru yaram la wala feebaru moral la ñu ne yaram wa dara sikku ci waaye xam gi mu xam yàlla ni mu wéete ak xam gi mu xam yàlla ni mu yeyoo moom kot ñu jaamu ko nga xam ni kenn la ci jëmmam ja kenn la ci jikkoom ja kenn la ci jëfam ja kenn la ca melokaanam wa ñu nar ko fee wàcc di sujjóotal leneen te dara du ci juddoo lu dul lorute moom la leen yéenewul di ci xalaat ba feebar feebaru moral ma jox la ci beneen exemple sa doom ji tuuti jiy raam su ne bëreet wuti taal ba xam nga moom bu xamoon ne taal la du daw jëm ca yow mi xam ni taal la feebar nga bu yàgg moo tax ñu naan taal ba taal ba taal Ibrahima loolaa ko daloon léeg mu dal sunu kilifa yi ci nun gis ku sóobu yoon ñu xam ne day loru ji ñu ne tiib ci loxo bi bakkanam giir ko mu nar dugg ci loolu ñu jàppaat giiroo kook moom moo tax boo amul kilifa ci njaaxum ngay dëkk yenteelu Ibrahima ñu ne ko sujjootal xiram mu woo bàyyi ba ñu ko yaa abat li ma taabudu ma la tasmau wala yubsiru wala yugni anka shay'a yow bàyyi lu la xiir ci jaamu loo xam ni soo ko woowee du la wuyu soo fa demee gisu la yaa abat fattabi'ani yow bàyyi topp ma topp may Ibrahima jooju la sëriñ si doon naan taalibe yi kaay leen waaye ba mu ne baayam topp ma ba ko bu ma la toppee foo ma jëme daf ko ñu ahdika eh, siratan sawiya dama lay teg ci diggu yoonu njub bi boobu la Seydi Hadji Malick ñëw indi fàkk daara ni bu kenn defati grand place day yàq xam nga fu mu ko jëkkee gaaya gëm juddoo mag yi gaaya la romb ñu di waxtaan téere yi nee ñu la ñuy waxtaane sax ayul waaye dañoo mënoon a zikkar te sikkaruñu mu romb leen ni leen ala ya ahla daw fa listafiqu وقد حان الرحيل إلى القبور وقد حان الرحيل ونيل زاد عزيز والطريق أخو الوعور دعوا عند المساجد ربع صوت وليس الربع يرضي للشكور yéen waa daw faal xeqi leen jot na laxas jot dem ca bàmmeel ya day jot na yoon wi dafa dëgër te laaj na yóbbal te yóbbali bi ci gën mooy yóbbalu ragal yàlla waxtaanu yi ngeen di def di waxtaanu addina ci kanamu jàkka ji dégloowul yàlla te lu dégloowul yàlla merloo na yàlla نرم المكايد ردا على الابن شكر الوالدين ومولى الوالد البر يا أستاذ من سلان رد النوم على دين الله تربية من إبليس مبدأ شكر الوالدين ومولى الوالد البر يا أستاذ هادي منصورنا نرد النور لدي دين الله تربية من إبليس مبتدا من منه المسايين فرد على الإبل شكر الوالدين ومولى بر يا أستاذ وانصب بايا منان رد النوبة بر يا أستاذ منصورنا أبي البلدات خير اللئيم ذنب الأرض أمثيلا ما للغير الموجود برد على الإبل شكر الوالدين والنعمان والد البر يا أستاذ منصورنا شكر الوالدين وموضع والد البر يا أستاذ منصورنا عمدا له والي من قد قد سأل أرفا ما والدي وفي داري موجود فرد على الابل شكر الوالدين وموضي والد البر يا استاذ منصورنا محمد الله تن ابيني لا بغنى هنا شكر الوالدين ومدى الوالد البر يا أستاذ هادي منصور والآل والهادي والأشواج قاتبة هنما بالخراتيس تبييد وتسييد أنا والآل وصحبي والأزواج قاتبة الواتيسي تبويد الواد من لنا من علينا بشيخ الوالد إليه البر الآن في النور زيد منه تجمع الصرداء والعالي وسابي والعالي عاتبة لما في الخراتيز تبيد الواد من فنان منا علينا بي شيخ الوادي دين البرد العدو في الموت في منه تجري والآل وصحبه والأزواج ما في الخراتيز تبيد وتفنان بايم إني آباء بشكر القلب وازدني هنوى من هذا الدعاء الإمام سعدي والآل وصحبي والأزواج ما في الغار مغناطيسي تبويد الوقت نانا بايم فالبي أيدي في أن أدي قطرات الوبل وهن في وبلي تجاريد والآل وصحبي والأزواج منصور نانا رد مدني دين الله تربية من إبليس مبتلى من منه المكايد رد النفوس تربية لدين الله إبليس ما ابتسمت منه المكايد ci ubbite gàmmu gi lañ nekk demaguñ ci wax ji may wax ci wàllu kilifteef ubbiteef la waaye fi ma jëm du foofu Mansour bu fekkee sëñ bi soxla wu la jógal bu dee yaa soxla sëñ bi bàyyil sa soxla sunu góor bu baax ga ci Tiwaawan Cheikh Sidi Hadji Mouhamadul Mansour ibnu Cheikh Al Hadj Malick doon ji wéy juróom Sidi Hadji doon kilifam defal ko lim ko defal ba mu mel ni mu mel daf cee sant yàlla ndeke ku santul xarab nga te ku xarab yàq nga mu ne fardun farata la moos alal ibni ci doom ju nekk chukrul walidayni santuk ñaari way juram ku ne sant sa yaay sa baay farata ci yow duut baaraam Seydil Hadj Malick ni ko antal walidu yow yaay sama way jur albarru yaay ko baax ki yaa ustaazu yow mi nga xam ni lu ma xam yaa ma ko xamal sin diidu yow sang bi waaye bàyyi dafa ti lu rëy ruta tàggat nga annufuusa bakkani taalibe yi tarbiyatan yar nga leen li diinillaahi jëme leen ci diine yàlla ku ñëw nuyu si la yow alaaji Maalik nga ne ko jaamu yàlla ak liggéey am njëriñ maandu jub moo am njëriñ tax na iblisu mabtasamat iblis soccu na waaye tee nga ko mooñ yow alaaji Maalik si nag daf na joxañ ku ñuy wax sayidul bu yàggul damay jàng benn téere mu wax benn wax bu garaaw waaja nee na weeru fukki fan ak ñeent sama yoon nekku ci bëggatuma ko gis ñu ne ko lu tax mu ne dafa ñaaw waaja nee na gis géej ñu ne ko lu tax mu ne géej dafa nay waaja nee na bëggatumaa gis jamaa ñu ne ko lu tax mu ne jamaa dafa ñaaw ñu ne ko ah, lu dàq weeru fukki fan ak ñeent mu ne xar kanam yonent yàlla Muhammad ñu ne ko lu gën a mu ne ñaari loxoom ya ñu ne ko lu dàq jamaa mu ne mooñaayu bëñam ya bayt baa ngi nii déglul min wajhi ahmada lii badrun wa min yadihi bahrun wa min famihi durrun li muntazimi kooku na léppi rasulillahi sidi haaji malik doronte na ko ci téere bi li ci garaaw nag mi ngi ko bind rek ci ñaar fukki fan nos bi texte bi texte bi juróom-ñaari fan la charxa bi commentaire yi fukki fan la ak ñett muy vingt jours mu complété mu def ko junniy bayt ak juróom-benn fukk mu daanoo miimiya ñu naan ko miimiya xaafiya mooy li tubaab di wax riim soo dee taalif daanee la arafu m dañ naan riim ba m la bu dee kaa ñu ne xarfu kaafiya la bu dee m ñu ne nuuniya bu dee bee ñu ne baa'iya la alaaj Maali jël lettre alphabétique bi lettre bu ne mu tagg ci rasulillahi tagg ci Cheikh na Ahmad Tidiane yi wesaare ci xam-xam dégul de xaaji Malick nee na rasulullahi laata muy nekk leer liir la laata muy nekk liir leer la billahi dama bëggoon ngeen déglu ma te wàññi ngéwali gi tuuti ñuy way rek ni ñu ngéwali xaaji Malick nee na yéen Muhammad laata muy nekk liir jëkk na nekk leer réew ba jibril seet si na rasulillahi ñol makka ni ko jibril ñaataat naam jibril ni ko takkuma samay at waaye daan naa gis benn biddiw buy feq ci loolu arash biddiw boobu masaan fekk balay suuxaat am soixante-dix mille ans biddiw booba gis naa ko soixante-dix mille fois yonent bi ree ni ko jibril yaay gone ana zalika al man mi maa doon biddiw alaaji Maalik ni leer ga dugg na ci fukki kiiraay ak ñaar ñu ne ko kiiraay bu njëkk ba na mu tudd mu ne qudratu bu ca topp minnatu bu ca topp raybatu bu ca topp rahmatu bu ca topp saadatu bu ca topp karamatu bu ca topp kiiraay yeeg jeex alaaji ni bul ci wune bu ne dinaa la wax ñaata at la caam kiiraay bu njëkk ba fukki junni at ak ñaar ba ca topp fukki junni at ak benn fukki junni at juróom-ñeenti junni at juróom-ñetti junni at ñaari junni at juróom-benn junni at juróomi at ñeenti junni at ñetti ñaar benn. alaaji maa ni topp naa leer ga nekk gu liir mu génn alaaji maa ni dugg na ci fukki géej. ñu ne ban ak ban mu ne dugg na ci baxrul mahabba dugg na ci baxrul rahma dugg na ci baxrul nazra dugg na ci baxrul qudra dugg na ci baxrul karama dugg na ci baxrul maarifa dugg na ci baxrul shafaa dugg na ci baxrul hidaya dugg na ci baxrul juud dugg na ci baxrul xikam alaaji mel ni géej yi jeex na dugg na ci maam yi muhammad a ngay dem ci abdullahi moo ko jur cheybata jur ko Hachim jur ko Abdi Manaf Qusay Kilaab Murata Kaab Luway Gaalib Fihr Malik Nadir Kinaanata Xuzaymata Mudrikata Ilyas Mubar Nizar Maad Adnaan Alaaji Maalik ni rasulillahi nee na kuy bind samay bul jéggi Adnaan te maandoo ma tax a jóg foofu laay yem tudd maam yu jigéen ne fahunna Fatima Salma wa Aatika Hubee wa Fatima Hindan lahunna sini waxshiyatun بنت شيبان وماوية بالواو سلمى وليلى عد لم تلم منهن جندلة لا تنسى عاتكة وبرة ثم بنت سعد ذي الكرم سلمى وليلى رباب سودة ومهانة ومعدد عل أبيات تغتنمي عي bokk na ci lamar yi nga xam ne benn xaraf lay doon gis nga boo ne woon waala yeli da nga naan li boo ne waa yaay da nga naan ay alaaji maay ni aminatu wahaba ko jur wahaba abdu manaafa ko jur zuhrata ko jur zuhrata kilaaba ko jur foofu la dajeeg maami bàyyi ba da nga naan muhammad abdullahi cheybata hashim abdu manaaf xusey kilaab ci juróom benneelu maam ba ni aminatu bintu wahab ibnu abdi manaaf ibnu zuhrata ni ibnu kilaab ci juróomeelu maam ba muy mbokku ndeyam di mbokku baayam ñu ne alaaji maay ne kaaba gii ñuy aji dégg am na buur bu ko doon bëgg a toji alaaji maay ni bul ciw ne abra lañ koy wax waaye dañ ko wax ashram ñu ne ko luy ashra mu ne bakkan ba dafa xar da doon xeex ñu dóor ko ca jaas yi ñu ne ko bindal mu ne ayna almafar wal ilahu taalibu wal ashramu almaghlubu laysa alghalibu Seydi Alhaaji Maalik nee na Abdullahi bi jur rasulillahi xam naa ñi mu bokkal ndey ak baay juróom lañu umaymatu barratu atikatu bayda arwa juróom ñi ak Abdullahi bi jur rasulillahi ñoo bokk ndey ak baay Seydi Hadji Malick nee na Abdoulahi ba muy denc soxna 18 ans la am ki mu denc Aminatu la tudd 30 ans la am nee na bisu ajjuma la leer gi wàcc si ci yaay Aminatu waaye nee na ñu ngi ko ëmb juróom-ñeenti weer weer wu ne ab yonent ndokkeel na wa jaa aadamu tabshiran wa shiisu laha idrisa nooxun wa hoodun wal xalila sini summa dabiixu kalimullahi kilmatuhu min awali shahri fi tartibi la tahimi hajmari ni ku tudd rasulillahi julli ci moom kon duma ko romb ala nabi wa alayhim ajmaina salaama rabbina daiman amma bi sahbihimi seydi haaji malik ne rasulillahi at mi mu ganee àddina ñaari téeméeri jigéen deena ñu ne ko leen rey mu ne seen yaakaar a tas dañoo ëmboon defe ni ñooy jur xëyrul bëri yëtti mu soob yàlla mu jël ngeneel la jox ko ko neex ñu faatu ñu ne ko bindal mu ni wa ma tadiqun min alniswaani min asafin arafna daaka min alkuhaani laa tahimi seydi alhaaji malik nee na bi rasulillahi ganee addina bukki ak till daje nañu jàmm am segg ak tene daje nañu jàmm am seydi alhaaji malik nee na rasulillahi bi su altine la ganee addina waxtu njël la biddéew bi ñuy wax mushtari la tolleeg muy fekk ñu ne ko bindal Sénégal dañoo bare wax mu ne tuluuhu wa tuluu almushtari iqtarana yaa saad muqtabisin min nuurihi al amami Seydi El Hadji Malick nee na maam Aminatu bi mu yëgee lu ñuy tudd aw mat malaayika ñëw raay dënn ba yëgatul mat wa ñu ni ko bindal mu ne lamma ataaha alladi yaati nisaa raat janaha tayri nafa ma hala min jusumi Seydi El Hadji Malick nee na rasulillahi bi mu ganee addina ñetti drapeau la ñu samp ci asamaan si bee nga ca penku bee nga ca soowu bee nga ca digg asamaan ñu ne ko bindal mu ne raat thalathata qad intasabat fi kaabatin mashriqin wal maghribi irtasimi Seydi El Hadji Malick dina rasulilahi bi mu gane àddina kaaba ga dafa rëg-rëgi trois jours daanoo côté ndeyjoor ñu ne ko bindal mu ne tazalzalat uswanatul muluki ka kaabatin ثلاثة أيام فلم تخم مالت مميلا مع الأركان أو سجدت تعظيم مستوجب تعظيم محترم سيدي الحاج مالك nee na rasulilah yi ñaari weer la am raam ba mu amee ñetti weer la jóg taxaw ba mu amee ñeenti weer la taxaw ba dëgër ba mu amee juróomi weer la tàllal loxo mu jot miir ba juróom-benn weer ku mu kursal gañe la juróom-ñaari weer ca la waxe juróom-ñetti weer juróom-ñeenti weer lamiñ wa leer nañ ba mu amee deux ans ku mu ku mu ku mu song daan la ñu ne ko bindal mu ne xabaabi shahrayni fi jiimil qiyaami wa fii daanin gadaa mumsikan judraani zahimami wa qudratul mashi fi haa'in wa asraa fi waawin wa fi zaayi yasraa muasa ya mu'tazimi fi haa takallama fi taa'in fasaahatuhu fi lyaa'i yarmi wa yu'yi absar al jusmi ñu ne ko alaaji Malik guddi na mu ne xaaral ma wax la Abdul Muttalib kañ la gaañu ak booba rasulilah ci ñaata at la dale yaakaar naa foofu lay tàmbee tey ama samaani déggal colonel naan jàpp nga forme عام الثماني وفاة الجد جدي ذا أنمين وحاتم وأنو شروان ذي الكرم وفاة جدي ذا فعلوا شر وذي الكرم من نو شر والذي لكرم ثم أدوان الجزاء أسد رسال دون دون ثم منها لو شعر ما نذي لكرم ثم أدوى من كما أسد شأن دودان دودان تمام البشر ولدي الكرم همال القضاء أسدور شان اليوم دوران الشمال عدل الجنة موت

aminata aminata sani loxo yi ca kaw sani loxo yi ca kaw abudalaay abudalaay Abdul Muttalib maami Mamadou la mu ni Qusay maami Mamadou la mu ni Kilaab maami Mamadou la mu ni Maat maami Mamadou la Haashim maami Mamadou la Abdu Manaaf maami Mamadou la mu ni Qusay maami Mamadou la mu ni Kilaab maami Mamadou la mu ni Kilaab maami Mamadou la Taymata maami Mamadou la Mudirikata maami Mamadou la Yasmudar muzaymata mudirikata ilyas mudar muzaymata mudirikata ilyas mudar muzaymata mudirikata ilyas mudar من نزار يطلب مدار من النزار من مات مات مات مات عبدنا عبدنا عبدنا عبدنا أدنانا لخشتو أدنان أيوة أدنانا أدنانا أدنان لخي أدنان ما مامي أدنان أني أدنانا لموضيم أدنان أيوة أدنان طفل موضيم أدنان أيوة أدنانا لموضيم أدنان adnaan la mawdayam adnaan wax leen adnaan moom la mawdayam adnaan ci adnaan la mawdayam adnaan aywa adnaan moom la mawdayam adnaan aywa adnaan la mawdayam adnaan أدنان على مولايم أدنان وخل أدت نزارا ما عدا الخير أدنان ورفع يا نفيفير فمدخل لفرد عدا الخير أدنان مرفع لحيتك وعدت نزارا ما عدا الخير أدنان مرفع يا نفيفير مدكتزر وعاد أنا جابر أدنان مرفع يعني ويكر الفمدة يا نكيفر البابتس مختصر معاد الأدار ذو عدنان وعرف بخيت قيدا معاد الأدار ذو عدنان مرفع كل نزارا معاد عدنان وعرف بخيت قيدا نزارا معاد الأدار ذو عدنان عبدنا من ابي الدار واو يا نبي في البغد عدل نزارك ما عاد يجاوز عبدنا من ابي الدار يا نبي في مغتر نزارا ما عاد أدنى من أمينا زمني هوى وعام زماني وفاته الجد لا من مولد محاتم وراء لا شر

وأنو شروان شروان بالكرم دنجل لكل اندل دوي wax dama talxiis miimiye bi jamat ko ni sudi xaaji malik bind naa nga mu ni hee tey da moom naxoon waaw man kañ laa leen mës a nax Seydi ibnu Seydi Xaaji Mansour toog gor yu baax yépp toog ñépp man lii ñu doyloo ma ci yónni ma ko may naxe Sidi Xaaji Malik nee na yonti yàlla Muhammad ni cëram toll ni la nattoom toll borom cër bu ne day am nattu première nattoom laata muy juddu baayam gaañu bi mu juddoo ba am juróom-benni at yaayam gaañul bi mu amee juróom-ñetti at maamam ji ko yoroon gaañ gaañu la bàyyi juddoo ko juróom benn at nga gaañu la yaay juróom-ñetti at nga gaañu la maam koo dese yàlla ni ko man te gis na loolu kat moo si Sidi Hadj Malick bi muy ñëw Tiwaan fekk si fa baayam fekk si wu fa najaayam fekk si wu fa tàntaam fekk siw fa bàjjanam ay nit a soxla ku leen firil alquran doyloo ko mu indiwaale yàlla yàlla fekk ko fa yàlla gën famille yàlla gën famille qul in kaana abaaukum wa abnaaukum wa ixwaanukum wa azwaajukum wa ashiratukum wa amwaalun iqtaraftumuha wa tijaaratun taxshawna كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا suñu borom nee na ku ma jëndee juróom ñett yi xaar ma danaa la dal ku ma jëndee sa baay wala nga jëndee ma sa doom wala nga jëndee ma sa mbokk wala nga jëndee ma famille ba yépp wala nga jëndee ma soxna sa wala nga jënd ma alal jooy fàggu te yaakaar ak xamago dina sotteen déet wala commerce buy bëgg a lamb kër gu ñu tabax moo la gënal man yàlla fatara basu jëf ndooy yàlla nee na xaar ma dinaa la dab ci laa teg li ma yàlla gën fami xaaji Maalik yàlla la indi Tiwaawan am yàlla yonent yàlla Muhammad juróom-ñetti atama ngi noonu deseetul lu dul bàyyi bu ndaw 40 plus 50 Euh, plus plus plus cinq boo bëggee mu gàtt da nga ne Abdul Muttalib biñ koy dugal ci bàmmeel téeméeri atam manqué ne juróom soo bëggee mu gudd da nga naan bi muy dugg ci bàmmeel mi ngi ci juróom ñeent fukki at ak juróom ñu ne Xaaji Malik jàngal ñu faatu maami Abdul Muttalib lu ñu ciy jariñoo ñun mu ne ku ngeen faatu leeti lu mu rëy rëy rëy mën ngeen ko muñ ci loolu la sama xel demoon keroo bi Cheikh Hadji Abdoul Aziz génne àddina ba ma dellu ma ne fekk na alaxira ku ko gën ndax fekk na fa yonent yàlla Muhammad waaye bi ñu ko dencee ba baat nay tukki ku ko gën du ko fa fekk dama ne bi sëñ Abdou génne àddina daaw góor a ngi moo ma doon nax keroog damay yuuxu ni ci suuf dàll ni wuy sama ndey mu ni ma ah te yow yaay waare bis bu nekk lii de kenn mus koo gis te moom it mi ngi takk bopp bi di ma dëfal di ma sotti ndox ba ma sedd guy sama xel dellu si ci lii ma ne ah kon kat sëñ Abdou fekk na àllaaxira ku ko gën ndax fekk na fa yonent yàlla Muhammad waaye bi ñu ko dencee ba baat nay tukki billahi ku gën alxaaji Abdul Aziz du ko fa fekk. am li ma am lii mu xam lii nga xam. du mal lii nga mal ndax du doonu ku mayam du man nga man na ngeen xam ni ab doy sewetaas mi noonu seree daal waaye kum wurusu wi ngalam ko am li nga am mbaa mu xam yaay nga fa du man li nga man ndax du doonu ñépp def nii nu magal Cheikh El Hadj Abdoulaye Sy Malick na ngeen xam ni abdoy sewetaas fi ñun Sénégal waakum wurus wuy ngalam bani woo Xasan de ci jullik jumaaja xel yépp a tiitoon te ànd ak ngëlëm ba ñuy naan ku koy jiite ñii naa xanaa xasan de manaan cey li ci ñàkk xam fa maa ajabal abdu lama ala ca kaw tirbin ba xel yépp booloo xërëm mu jóg jàng discours ba mu tàccu te naan kii gisee sul kemam fa wallaahi boobee budul kontak moom mi senegaalu cantam du weesu acam ba buur makka wootee di def kongareem te naan njiitu lislaam bi laa bëgg xam mu wax kab la ambassadeur bi fi ne ñi ko wol Abdul Aziz si mooy ka gëm jox ko paas bu ànd ak fereem te naan abdu maam Maodo naa gis jëmmam ndawal buur la teewal Saoud jóg taxaw ni fii kenn du fi dem lu dul abdu dem keroog Mouhamadul Habib ak Seydou Nourou Taal ñi tax mu jóg jël décision ci dem ñu daal koy xamal ni fala udratayni ku déggul li ñuy wax mënul njëkk am sëriñ Abdou yaa ñuy demal réewum arab kur léew ci mim réew su demee du indi ndam sëriñ Abdou yaa ñuy demal réewum arab kur léew ci mim réew su demee du indi ndam kur léew ci mim réew mënul dem ijaas dafay indi xeebel te loolee du am mu wax Cheikhu Mbakke jógal kon ñu dem kurul yow amul fit bu mat fee ñu jëm na yaay sët ci bamba di taawu Moustapha Mbakke te doy leen am gannaaw am kanam ñépp def ni gu baax googu nee na ko yaay sët ci bamba di taawu Moustapha te doy leen am gannaaw am kanam ñu jóg àndandoo dem ci réewum Ijaaz ñi lee ñaara am ngorto bokk jom xamal réewum ijaas du ñoom deeti yab Sénégal ngir ak Abdou moo leen ëlëm ba ya booloo di yéem Abdou naan kii dañoo jortu woon ni du mooy ñooy gis jëmmam mu far sempiraay ak ijaas yut nu fii de kontebrul yow mi fu nuy xal di jëm sëriñ yaa mat te yaa jara damoo dama réerewul mbir ci yow maa la xam sagal ngaa di sam réew ci réewum arab na bur yàlla fay la te ngay jëm kanam da baax baax te mat sëriñ laa biire nit ñi tey jëriñ borom tëraay bee daa nooy lool ba mel ni fëriñ ku baax taxul nga mel ni moom su réew mi yëpp royoon ci moom jiital ko jox ko li mu moom xam ni bëggul lu dul juróom mu yóbbu leen ci seen boroom su luy amoon jàmm ji taw su luy amoon nit ñi nelaw su luy amoon seytaane daw xam ngeen ni lii moo war a am alxaaji Abdu Asiis Maalik dal yonen bi yaa ko soloon fii tariqa cheikh bi yaa ko safaloon sap Sénégal gi di gaal gi yaa ko kal ne mu suux ñépp a ko xam Abdul Aziz daalab ci mbaax góor gu baax gi ca teraayam bu jëkk bee ca bijaaw am bu rafet boobee daalab ci mbaax moo tax mu def ñépp rifaaq xamul lu ñaaw mënul shiqaaq ku mel ni moom yomb la am xamul ñañeen xamul si nga bokk waalo mbaa feneen ngay setu yonen mbaa bu cheikh abdul ku jub la xam nga bokk waalo mbaa ndey sa tuyal nal mbaabu Cheikh Abdoul Aziz te roy ci te nay ci te nooy ci te sey ci te seey ci moom mooy sunu saas moom la ñu am asuuqu lakum fi qaala shi'ri sayyidi la aaliya aadaabin samat an zabarjadi fa fi madxikum taxlu wa tazhu qasaa'idi wa tazdaadu alfaadi bi asmaa fawaaidi moo yow baay ayaa sayida saadaati nuzhata asrihi ilaahi waxal ishamalat nga ne waxal ishamalat wax na lu rëy kët xale bi doy na waar de wax na lu rëy na turu yont yàlla Muhammad ci ñeenti lettre ci alphabet bi miim nee na fokk ngeen teey gis nga avion avion ñu koy dawal ñëpp ci lañu waaye am na ku diriger waaw kii sos na ma te nee na colonel Ndoye sos na ko te nangu na sas wi nee dafa am lu mu waxoon fii ci tournal bi nee na mu ni Seydi Aboubacar mooy xaritam mu na ko may kër nee na may na ma kër man may Seydi Aboubacar kër nee na bu jógee moom nee na mu jox ko numéro yi nee na may na sëriñam kër may na xaritam Abdou Sarr kër boole kook sama kër ga ca mbaaw gannaaw muy ñaari kër. Ah, <laughs> nee na nu dem. waaw nee na may na ma kër. waaye yéen xanaa déggu leen li Abdul Aziz bi wax nee na waqad istashmala enveloppé na ëmb na ismahu shérif turu yonent yàlla Muhammad wu tedd wa ala arbaati ahruf al hijaiya ci ñeenti xaraf ci alphabet bi <laughs> miimun un la ñuy wax aadam nee la du arab miimun xaaun miimun ku topp diine Ibrahima ju sell ja bokk ci sécurité bi nee na miimu ñaareel ba nee na mooy caabi yërmande yàlla nee na daal ga mooy woo gañ koy woo yow xiyaam ni ko kaay ram mbindeef te fekk ñëpp lox di pat pati mooy géej ga nee na xameeful ñeel ko ba faw géej la goomul tefes nee na xam na yàlla amul kem kenn dendu la gën teel Muhammad أعطوا خلق آدم ومعرفة شيثة وشجاعة نوح وخلة إبراهيم ولسان إسماعيل وفصاحة صالح وحكمة اللوط وبشاء يعقوب شدة موسى صبر أيوب ودانيال وخر إيال زود عيسى طاعة يونس جهاد شعر وأنه رسول رب العالمين ثم سلق من العوالم كلها علوها وسفلها ثم أعلمه بنبوته وآدم لم يكن إما كما قال صلى الله عليه وسلم بين الروح والجسد ثم انبجس من عيون الأرواح هو الجنس العالي والأب الأكبر على جميع الأوجود الموجودات والناس الناس ولا من انتهى الزمان باسمه الباطن وظهر اسمه بحقه صاحب الحق نور الحق طلعة الحق رسول الرحمة علي الحمة شفيع الأمة واضح البيان فسيح اللسان طيب العرق جميل الذكر جليل القدر حديد الطرفين لا حجاب له أجمل الأنام حلو الكلام مبدئ الإسلام ركن الإسلام رسول الملك العلام هو صلى الله عليه وسلم ومسرورا نظيفا من عدد ذي عيوني سار كمستكين في آذو تراب من سام مكين بالأركان أتى ساجدا مثل الفتين أن جانا مبينا هواتف للواكب مدرقات takk sanaareem dugg ca biir làbbe ya te àtte ba mooy rey ndax espionnage la def bi ñu ko taxawalee làbbe bi ni ko dama lay poser ay question soo ko tontoo ma bàyyi la nga dem soo ko tontuwul ma rey la Abu Yazid ni ko waxal mu ni ko li may jëkk laaj moo di benn teen boo xam ni bi quatre tuyaux ñoo ci branché te bu ci ne di sotti lu bokkul ak moroom ji teen boobu ban la Abu Yazid ni ko boppa ngoog bët ci yóor la branché nopp ci la branché ci la bakkan branché ci la gémmiñ branché ki ay ñoox lay génne ki ay yuut lay génne ki ay ñandaxit lay génne ki <laughs> waaye dama bëggoon ngeen déglu ma man mu dem ba toog Seydi Aboubacar yëkkatiwaat ma am na lum nar dama lay laaj benn teen ñeenti robine branché ci robine bu ne di xelli li bokkul ak la morom jee xelli Abu Yazid ni ko boppa ngoog bët ci la branché ay laas lay génnee kerangooy ci la nopp ga branché di génne ay jurgët bakkan branché ci génnee baqata gémmiñ branché ci génnee lar mu ni ko wax nga dikk maa ngi lay laaj ñaar yu amul ñetteel mu ni ko ñaar yu amul ñetteel yaatu na ñaar yu amul ñetteel yaatu na boo guddi noor xees am wér addina subhaana alladi xalaqa al azwaaja مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ولا يعلمون mu ne ko wax nga dëgg gàmmu mu dellu ni ko dama lay laaj ñeent yu amul juróomeel ñeent yu amul juróomeel ndax sëñ baa ngi may suivre jërëjëf si xam nga ñeent yomul juróomeel ban ak ban la at mi ñaata weer la ñeenti xaaj la ñeenti xaaj la noor kundum cooroon nawet lolli printemps été otom hiver yamu ci de saaba yi ñëpp a baax waaye Aboubacar Omar Ousmane Ali ñeent goog de pour nga dund sax ñeent la wër alxaaji Demba Seck la ilaha walhamdulillah la ilaha illa سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله lay bàyyi laa. tey dina naa ko doon laaj ku yore diine. te ne ko fa jàmm lay bàyyi laa yéen. ku doon laaj ku yore diine yoon nan ba fa jàmm lay bàyyi laa yéen. tey doon laaj ku yore diine yoon sidi mursalina ku doon laaj ku yore diina fa jàmm la ilaha ku doon laaj ku ba feeru fa jàmm ba feeru teru faja malaay bàyyi la sanil xoy ca kaw ku doon laaj ku yore diine yoon nan ba feeru faja malaay bàyyi la sani musalina ku doon laaj ku yore diine yonen ba feeru faja malaay bàyyi la ya yore diine kuy fanjay di ko booleeg sabar yi. yow lañu àndal ni dof ku doon laaj ku yee diina yoon nañ ba feer ku doon laaj ku yee diina yoon kuy dof la ku doon naa ku yore diina yoon nan dafeer ba jàmm laay bàyyi laay amina ku doon naa ku yore diina yoon nan dafeer ba jàmm laay bàyyi laay ne loxo yi ca kaw ko sanjaay te di ko mu lay ñu ni dof la ku doon laaj yore diina yoon nan dafay fa jàmm lay bàyyi laa ku yore diina yoon nan dafeeru fa jàmm lay bàyyi laa ya yore diina moo ji malaaka yaa ngi maam dal ci saa di joor ak càmmoñ malaaka yaa ngi maam dal ci saa di joor ak càmmoñ ñu na la woyal jooy seen bàyyi li maamu ndoon ni ku yàlla yoon ni la woote ku mu yónni wu. wédi musalina ku yàlla yónni nga woote ku mu yónni wu. sëñ loxo yi ca kaw ku yàlla yónni nga woote wul doo. wédi ku yàlla wul doo. ku woote ku mu yónni te du loxo mu yónni wul doo woote ku yàlla yónni nga woote ku yónneen te di ko weddi ku yàlla yónni nga woote ku mu yónni wani mu bali naa ku yàlla yónni nga woote ku mu yónni wala doo woote xirwaanga fii na fa pen tere jàmm lay fala yaaram ba feeru waa sawu am ngeen ngeneen waayoo fa mbaraku wakaam mbaaw am ñaari yónneen te di ko weddi ku yàlla yónni nga woote ku mu yónni wul. te mu ku yàlla yónni nga woote ku mu yónni wul doo woote. xinu ànd xii dafa penku tege jàmm lay fara yaaram ba feeru waa sawru am ngeen ngeneel. waa yoo fag ngorab wakam maaw dem ñaari yónneen te di ko wéet. ku yàlla yónni nga woote ku mu yónniwul doo woote ku yàlla yónni nga woote ku mu yónniwul doo rabbul jalil wahidun sama sali ala la la la la rabbul jalil wahidun sama sali ala muhammadu rabbul jalil wahidun زيد فصلي على محمد رب الجميل واحد فصلي على يا إلهي رب الجميل واحد فصلي على محمد رب الجميل واحد ما سما فتلا أتينا من صفا أصلا إلى قصدنا ما أنصما أي برم دارجني أتينا من صبا علي بين قصدنا ما أنصما فضلا أتينا من صبا أصلا وعدنا ما فما أي بوم بارجنا أتينا من فما أفلا وقصدنا من فما فضلا أتينا من فما أفلا وإذا قصدنا من فما ألف بابا كرنا أتينا taalibe cheikh yi moo la def leen ni qasaada maama sama wadalan atayna man safa ajla ina qasaadna ma sama ayubum darajine atayna man safa qaliba bayna hamidna allah maulana وعنا قد نفى جهلا قصدنا ما عبر بارجنا أتينا من صبا علم بين جزاء مولاي شيخي من على يحمله شملا قصدنا أي برم دارجنا أتينا بالي بشري ما بلد فلني لنا فوز لنا غنم بسهمي مرحبا سهلا فضلا فضلا أتينا من فبا خلل بين فإن كيتم إلى قرمي أتاكم ما كفى وطلع فادنا من فما فضلا أتينا من صبا أنا بين فإن جئتم إلى قرمي أتاكم ما كفى وإمام إنا قصدنا فما فضلا وأدرنا من فما كنت بنفرني فحقيق ما بي نطق فحقيق ما جرى فعلا قصدنا لنا فضلا فضلا أتينا من صبا طلب بين فإن يعزال قول قول فممن بي فممن قد نفى مثلا أول أول ممن بي ممن قنبا بجد فلني فإن يوزال فممن بي فممن قنبا مثلا فممن بي فممن قنبا مثلا أيوة فأنتم يا Muhammad